asalaamualeykum waa Sénégal euh, man Ansoumana jon di njiital kuréel gi toppatoo ak ak yelef ñu amee feebaru xel may ñëwaat tey waxtaan ak yéen ginnaaw bu yàlla dogalee sunu réew mii di Sénégal nekk champion d'Afrique waaw mbir la bu am solo ñu ko ci sant moom sunu boroom euh, ba mu ñu mayee ginnaaw ay at ñuy wut boobu lay ndam yàlla yombalal ñu ko ci atum 2022 bi juróom benn fan ci weeru février ku nekk nag war see jëlee njàngat waaye jàngat bu ci war a jiitu mooy il faut sénégalais yi xam ne dara xëyul sotti nit a ngi wut dara bëggu ko waaye kañ la siy jot suñu boroom rek moo ko xam kon ñu war a jël lépp delloo yàlla ñu war a xam ne moom mooy buur te moom mooy dogal te moom saa yu ko soobee la koy def ñu waree ñu war ñu war a tamit gën a xam ne mbir yi dafa ànd ak tey dafa ànd ak xaar dafa ànd ak dal dafa war a ànd ak muñ lu waay du wut te muy lu rafet ngalawaay bul xaddi jàppal nga tëw bay dañuy wax naan ku yàgg ci teen baag fekk la ci waaye bi gën a rafet bi gën a wóor mooy ku yàgg fëgg bunt bés dina ñëw ñu ubbil la ndaxte nekk ci teen wóorul de nekk ci teen baag mën nañoo fekk la fa waaye après mën na leneen mën na xew waaye bunt booy xëy di fëgg bés bu jot bés bu jot ngay fëgg boo xëyee fëgg bu ngoonee nga fëgg bés ni dañoo ñu ubbil la ren nag lañu ubbil buntu Coupe d'Afrique des Nations nañu xam ne àdduna yàlla pare na léppam yàlla pare na léppam lépp ci ay dogalam lay ame nañ ci it bàyyi xel buñ la dénkee ay mbir nga bokko nga bokko ay nit ngalawaay na nga fexe ba boole ci ñëpp na nga fexe ba boole ci ñëpp bul xeeb kenn bul boddi kenn ndaxte bu fekkente ne da ngeen di ànd di wuti ah nga nga nga dayloo sa bopp walla nga fonk ñii bàyyi ñii benn xol bu tàng rek benn manquement rek mën na yàq sa lépp tey dafa mel ni ngay togg sa ceebu jën nga am sa coof am say légum am sa ceeb am sa lépp nga ne déedéet du ma jënd sama coof bu seer bi wala sama sëdd bu seer bi di ci def xorom mi xam ne ñett dërëm lay jar moo ne xorom boobu di jar ñett dërëm mooy génnee caf kaw jën bi mooy génne caf kaw légume bi mooy tax ñu mën lekk ceeb bi kon lépp ngay boole ku ci nekk nga jox ko palaasam bu ci nekk nga jox ko cëram bu ñu amee ndam lu mel nii tey nañu sant yàlla waaye tamit nañu sant kilifa gi nga xamante ni moom la président Macky Sall dénk ministère bi des sports ministère yépp ay nit la leen président dénk président Macky Sall ngàcce ngalaama moom itamit ñu koy gërëm di ko sant di ko ndokkel ci coupe bi li ci waroon yépp def na ko waaye matarba ministre des sports Matar Ba tey bu amee ndam lii amoon na yeneen ndam sax yoo xam te ni ci wàllu coupe d'Afrique amoon na yeneen ndam ci wàllu coupe d'Afrique nañ ci bàyyi xel waaye coupe d'Afrique bu football moom la Sénégal ji doog a am kon Matar Ba boobule nañ ko delloo njukkal te rafetlu nag liggéeyam ndaxte bàyyiwul kenn. képp koo xam te ne Matar Ba war na wax ak yow wax na ak yow képp koo xam te ne sa cër woo na la ko jox jox na la ko te loolu la leen président Macky Sall digal président Macky Sall kum ci jox ministère daf lay wax ba mu leer na nga ànd ak képp ko war a àndal bul bàyyi kenn kon moom bu jëfee ndigal ba ndigal loolu indil indil ko ndam nañ ko rafetlu te it ñenn ñi mën see jàngee. ñëpp mën say jànge beneen bi tamit président Macky Sall dëgg la football bi def na ci ay moyens waaye nag ni mu joxee football bi ay moyens bañ indi coupe d'Afrique na ko joxee ñeneen ñoo xam ne soxla nañ ay moyens loolu mooy développer réew ci wàllu mbay mi baykat yi na leen jox ay moyens ci wàllu njàng bi ak njàngale bi jàngalekat yi la leen jox ay moyens boo ñëwee ci mbirum wér-gu-yaram ñaata at man Ansoumana Dione suñ kuréel gii di asam ñaar fukk at ak ñaar ba léegi ñoo ngi xaar ñu jox ñu ay moyens ngir ñu jëlee ñu amee feebaru xel ci mbedd mi ngir ñu dimbale ñiy nekk ci kër yi di faat seeni ay mbokk amee feebaru xel ngir ñu mën a dimbale sénégalais yi nekk bitim réew amee fa feebaru xel loolu yëpp ay moyen la laaj Sénégal ñëpp ay gaynde lañu soldat bi ci àll bi nee na gaynde ci àll ci àll lay nekk soldat yi ci àll bi ñu jox leen ay moyen ñëpp ku ci nekk réew mi daal maanaam buñ koy yemalee ci séddale bukki ku ci nekk nan la jox sa wàll ku ci nekk nañ la jox sa wàll nga liggéeyal réew mi bu ko defee ñëpp mën a am ndam Sénégal mën a jëm kanam Sénégal pour mu développer dafay fekk ñu war a liggéey ñëpp jox lañ leen ay jumtuwaay mënuse yi ñu fexe ba ñu mën a liggéey ci réew mi état mën a jëm ci seen ay mbir tailleur yi noonu jaaykat yi sàmmkat yi nappkat yi géej bi géej bi ñu bañ ko jaay bàyyee ko mool yi jox leen ay jumtuwaay yu baax Sénégal lii moo koy développé mbir nag bu ñëwee da ngay ñaan yàlla mu ful ko coupe bi yàlla indi na ko dañu ñaan yàlla mu jëkk ñu dañu ñaan yàlla mu indi yeneeni coupe ci yeneeni domaine te bëri na fi jàmbaar yaa ngi fi senegal ay gor ñoo fi nekk ñu bëgg liggéey ñu bëgg seen réew bo gisee ay ndaw di jël gaal di dem naan dikk dañuy uti euh, luñ terale seen ay wajur jom rek moo leen ko yóbbee xale bu nekk au senegal xolam boo ko xaree li ci nekk mooy mu teral ay wajuram mu tedd ci réewam teral ay mbokkam teral ay wajuram kon lii nañ ci bàyyi xel te it ñu xam ne muñ gi ak xaar bi lu am solo la loo yàgg xaar ndam fekk la fa waaye it nañu moytu ñu jox la ministère nga akimool lépp ñu jox la réew nga akimool lépp dama koy yax tout le temps même bu nu jëlee xar misiwal la ko ba mu jekk utile ñu la ko lekkle boo ko amul dagg ci tuuti nga berog loolu di des nga bakk fa xam ne moomuloo ko seen ay boroom ñi ngi ñëw waaye boo bëggee jël xar mi yëpp bëgg koo jëfandikoo boo ca paree di nga am ay jafe-jafe kon nañu yaatal mbir yi nañu ubbi mbir yi jox ku nekk cëram jox ku nekk lamu moom bu ñu xeeb kenn ci réew mi xoolal ñu ami feebaru xel ci mbedd mi mu mel ni ñoom bokkuñ ci réew mi te kenn ëppalawu leen ci réew mi président Macky Sall ci boppam amul lenn lu mu ëppalee ñu amee feebaru xel nekk ci réew mi ci mbedd mi di taxawaalu ñoo président Macky Sall ñuy am ci benn droit ci réew mi waaw lan moo tax duñ leen jox seen cër ci réew mi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen xale yi fan yi gis gis ngeen seen njàng bi nu mel te njàng muy avenir réew ndal la waaye nañu dimbale jàngalekat yi jàngalekat yi nañu leen dimbale réew moo xam ne jàngalekat yaa ngi ñaxtu réew moo xam ne jàngalekat yaa ngi ñaxtu boobu la réew du gaaw a dem kanam ndaxte xam-xam moo yor réew te jàngale mooy ngën gi métier nit ñi dañoo foog ne docteur mooy gën gi métier déedéet njàng jàngale mooy gën gi métier mooy moo gën ci métier gaynde yi indee coupe bi ñëpp booloo nekk benn booloo googu nañ ko na nañ ko fësal fépp nañ booloo jàppale baykat yi nañu booloo jàppale jàngalekat yi nañu booloo jàppale ñu yëngut ci wàllu wér yaram nañu booloo jàppale euh, euh, ñi nga xam ne ñooy euh, ñooy ñoom ñooy commerçant yi nañu booloo jàppale transporteurs yi secteur bu nekk ci Sénégal ma tudd ko ak ma ñàkk tudd bu ñu mànkowee mbooloo jàppale leen dinañu am ay coupe yoo xamante ni coupe du lenn lu dul rek luy firndeen ne sa liggéey mat na rafet na yàlla nañu yàlla dool taxaw may dellu sargal président de la République di sargal le ministre des sports Matar Ba ak fédération euh, sénégalaise de football Augustin Senghor jiite ko ak képp koo xamante ni rek yaa ngi àndoon ci euh, encadrement technique bi nga xam ni ñooñu euh, si ñoom la yàlla jaaralee euh, coupe bi ñëw fii ci suñu réew di Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.